léegi boo xoolee site bi nag site bu efficace la pour bind ay texte texte yi moo xam ne après da ko bëgg a teg sa vidéo wala da ko bëgg a teg sa miniature wala faneen nga ko bëgg a utiliser mais daal dalay simplifier ay logiciel wala ay yi nga xamante ni loolu la ñuy liggéey site bi dina la ko yombal sa texte bi nga bëgg a bind ngay bind mu transféré la ko ay texte word art yu rafet a rafet voilà te am ay effet yu bëri yoo ci mën a def tam yooyu yëpp dinañ ci ñëwoon leen ko fii exemple bu njëkk bi am am na ay partie ci ñëw fii ñu wan la rek bi fii nga xam ne moom mooy euh, fi ñu def entrée le nom ou le logo maanaam sa tur bi nga bëgg bind tour bi li nga bëgg bind wala logo am nu mu tudd nga bind ko fii par exemple ñun ñu def Galsen Tube la ñuy def gaal seen Tube exemple la nag waaye yoo li nga si bëgg a bind nga siy bind voilà ñu def commencé bu ñu defee commencé. dañuy indil proposé ñu ay style gis nga wax nañu ndax bii rafet na wala bii boo fekkoon ne am na boo xam neex nañ ci mun nañ ko cliquer directement ñu dem pour télécharger ko mais loolu dinañ si ñëw woon lan ni nga koy mën a modifier ci biir logiciel bi ak ni nga koy mën a télécharger ak ni nga koy mën a sax defee PNG sax option bi la ñuy dem nga xam du am fond waaw bind bi kese kese la la yóbbu nga xam bind foo ko teg rek foofu loolu lay jël voilà. léegi boo xoolee fii bu fekkee yi benn neexu la si mën nga tamit def suivant soo defee suivant mu indi la beneen page. waaw beneen page bi nag mu indi la fi yeneen effet gis nga voilà mu indi la fi yeneen ah bii xam nga rafet na trop voilà nga defaat suivant su fekkee ba léegi gisoo li ngay sox nga def suivant ba ba ngay gis li nga xam ne moom nga bëgg nga cliquer ko voilà bu ko defee nga def nag boo ko cliquer nga personnaliser ko su dee nag amul dara loo ci bëgg a personnaliser nga télécharger ko noonu su dee nag am na yow loo ci ay effet ombre yi de portée yeeg yooyu loo ci bëgg a dindi wala contour comme bu ma jëloon bi li wër bind bi dafa weex ma bëgg koo def ko mu ñuul mën naa ko modifier su ma ko et cetera voilà léegi ci léegi boo ñëwee ci suuf gis nga proposé la na la fii li nga xamante ni moom mooy ay ay ay animation vedette mu def ko par thématique fii daf ñu defal ji nga par mark soo cliqué woon fii par marque yi nga dalay indil euh, yoo xam ne ay marque la wala ay film wala dara ñoom ni ñu bindee seen bopp su dee noon nga bëgg a bindee ko choisir boo xoolee fii Adidas la la indil style bi ñuy bindee comprendre moom la la indil fii léegi moo nekk nii soo bëggoon choisir style Adidas fii nga ñëw soo bëggoon choisir style bind boo xam ne Star Wars la mun nga cliquer fii style Matrix ñi xam filmu Matrix muy film bu bu doy waar bu am solo <laughs> mun nga cliquer fii bind mu defal ko style comme Matrix comme Twitter comme Colgate et cetera comme Harry Potter Godzilla et cetera voilà Shrek voilà. style bind yëpp mu cliquer fi mun nga def sa bind comme style yi voilà comprendre nga loolu mooy li nga marque mooy marque yi la lay defal ñu wàccaat ñëw ba léegi mooy xam bi ñu defee effet marque soo effet kase. soo cliquer effet ji nga indil la yeneen effet yoo xam ne effet yu libre la mun ko choisir yeneen effet tamit ay Godzilla gis nga et boo ñëwee fii style horreur soo cliquer fii da lay bind yoo xam ne comme filmu filmu vampire yeeg yooyu bi façon ni ñuy bind yooyu la lay indil et cetera voilà su ñëwaatee mun nga def effet ñu xool bi effet néon ñu cliquer ko ñu xool voilà bu ñu ko cliquer gis nga bind yi comme néon la mooy comme bind yi am dafay am genre lumière voilà bu ñu wàccaatee ba léegi euh, ñu xool benn fii daal di dem bu ñu xoolee bind yoo xam ni bi reflet la populaire image incendie voilà bi nu boobu dafay am ay ànd ak ay tàkk-tàkk ay flamme voilà gis nga boo xoolee bii flamme bi day def mouvement bii flamme bi day def mouvement exemple xaama ma cliquer ko xool pour mu gën a fes voilà di nga flamme bi day def mouvement mouvement bi flamme bi def mel day tàkk dëggantaan mën nga garder même mouvement bi ci sa li mooy sa vidéo parce que GIF image la boo xam ni dafay bouger comme vidéo comprendre ko la su ko defee boo ko tegee sa vidéo defar ko tàkk-tàkk yi day génn ni muy génn ci ci li mooy bind bi voilà léegi ñu ñëwaat euh, demaat ci accueil bi ba léegi voilà bu ñu ñëwaatee ci accueil bi léegi mu nekk suñu Galsen Tube lañ bëgg moom lañ bëgg a bind léegi bu ñu xool fi style boo xam ne neex nañu par exemple moom lañ ko bëggee a bindee bu ñu neexee ñu bañ tàppee gum texte bi fii mën nañ choisir style bi ñu bëgg a bindee Galsen Tube bi ba pare su fii benn neexuñu ñu dem page suivante su ñëwee page suivante xool fii ba léegi benn neexuñu fi mën nañ dem beneen par exemple ñu bu ñu jëloon dina jël ñaari exemple bind bu simple wala tam bind GIF teg ko ci vidéo pour nga gis différence bi ñu ñëw page suivante xool maanaam dinañ gis waa bii neex nañu voilà ñu cliquer bii bu ñu ko cliquer léegi dalay jox même si même même format bind bi mu jox la ay couleurs yu bëri yu bokkul ak ay efe ak ay fond yu bari yu bokkul pour nga choisir si benn mais ñun choisir si benn parce que bii lañ gis mu rafet kon dañuy dem modifier waaw fii ngay soo cliquer modifier page bi la lay indi ñu def ko mu xaw a pour lu gën a bëri voilà voilà bu ñu defee modifier nii léegi nga defal nañu texte bi defal nañu comme mi ngi ñëw fii ay étape la nag fii ak fii ak fii ak fii ak fii waaw cinq étapes yi ngay jàll pour mën koo télécharger ñoo ngi fii texte bu ñu nekkee texte léegi la lañ defal logo wala texte fii nga bind titre bi voilà ñu bind fii Galsen Tube Galsen Galsen Tube voilà gis nga bind nañ Galsen Tube léegi nii lañ ko bindee mais effet bind bi moom même boo bindee majuscule lay def parce que effet majuscule la comprendre nga voilà moo tax indi ko majuscule léegi fii nga pousse ko ba mu sës fii nga ko indi ko ba ci rëdd bi ci digg bi ba mu sës ci waaw lu tax soo ko indee ba mu sës mooy teg sa bind format bi dafay gën a rëy maanaam dafay gën a leer boo ko tegee ci sa miniature wala sa vidéo soo ko paasee rëdd bi daf na da ngay dem version prime da ngay fay voilà version gratuite bi moitié bi la soo bëggee yéeg fii def version bu gën a kawee ji nga indi na loolu zone baare na fii ne il faut nga def mise à jour il faut nga fay ak gratuite bi milieu bi lañ la may mais baax na pour comme liñ koy doyee waat ñu wàcce ko ba ci moitié voilà gis nga day chargé waat fii lañ koy yemale mais boo yemalee foofu fii deuxième partie bi si topp moom mooy fi ngay choisir stylu bind bi bind bi format bi mu nekk mun nga ko changer ba léegi fii ngay ñëw nga cliquer soo cliquer fii gis nga indil na la façon écriture yu bokkul waaye léegi gis nga ñoo ngi kuul comme bu koy wër it mën ñëw fi léegi bu doon nañ ko bëgg a changé par exemple ak bii façon bi lañ ko bëgg a changé da ngay cliqué soo cliqué da ngay xaar mu changé ji nga changé na voilà bu dee boobu neexuñu ñu bëgg ko changé waat nga cliqué waat ba léegi fii soo cliqué ñu ñëw par exemple euh, beneen façon par exemple handwrite mooy bind yoo xam dañ koy bind style loxo ñu ñëw choisir bi ñu xool gis nga changé nañu ko voilà kon comprend nga fii ngay ñëw di wër écriture yi nga bëgg soo xoole fii benn fii neexu la nga dem beneen beneen groupe nga ñëw ngay wër di wër ndànk par ndànk ba xool style bi la fi neex su la benn neexul nga dem beneen groupe xool fii love nga dem beneen beneen groupe su la dara neexul ba ba ngay trouver style bi nga xam ni neex na la style bi la neex soo ko gisee la ngay def nga def après ok soo defee ok bu dee style bi lañ bëgg a jël léegi ñu ñëw ci deuxième partie bi muy logo ñu cliquer ko suñ cliquer logo lu mu ñu indil mooy couleur yi nga xamante ni moom la suñu bind war a jël wax nañu bind bi couleur bii la couleur bu rouge bii la léegi defal nañu fi aperçu supplémentaire yi yi nga fii bu ñu xëccee ñu xool mu chargé nga gis sabab ji nga réel na lan bordure yi comprendre nga suñ bëggee mu daw ñu bàyyiwaat ko par défaut ni mu meloon voilà ni mel nii la meloon sinon boo yokkee day yokk bordure yi léegi am nañ fii ñetti option muy lan muy bàyyi ko mu nekk couleur wala def ko modèle wala def ko gradient couleur mooy comme boo ko defee ji nga yaay choisir couleur bi fii couleur bu la neex bu ñu choisir par exemple verte ñu xaar bind bi day daal di verte voilà gis nga comprendre nga léegi nga def ok jeex na su dee choisir uñ couleur euh, modèle lañ bëgg a choisir fii ñu ngay cliquer soo defee modèle ay genre bant la lay indil wala ay mur wala ay tapisserie et cetera nga choisir bind bi li nga bëgg mu mel ko ñu cliquer fii soo cliquer gis nga da lay indil ay effet yu bëri xam nga bii comme ay briques la soo ko cliquer nga loolu moom mooy chargé wu ci biir li nga xam mooy bind bi voilà soo cliquer waatee mën nga ñëw nga choisir standard yi moo nekk ni mun nga ñëw extra ñu ne la yeneen façon gis nga yeneen façon ay effet texture la quoi voilà léegi-léegi tam am na bind yoo ne moom ngay soxla parce que mooy gën a rafet yi nga yi comme ay effet marbre ak yu ñu nga effet couleur yoo xam ne couleur yu foncé fes la voilà voilà léegi ñu ñëw stone ñëw fii waa def choisir par exemple bii nga am genre bu weex la voilà gis nga style bi muy def voilà mais xam nga kii du fes par exemple rek la voilà léegi ñu ñu dem ci beneen wër beneen bon waa deru segg bi style bi texture bi rafet na voilà gis nga bind bi comme deru segg voilà. léegi nag su fekkee bëggoo choisir modèle yaa ngi bëgg gradient nga ñëw fii gradient ay couleurs yu bari yu bokk la ñuy boole comprendre nga dañuy jaxas ay mescalade ay couleur couleur yooyu nga choisir si benn. léegi boo defee gradient par défaut gis nga indil nañu ji nga couleur par défaut yi nga xam ne moo existé mu jaxase ko ci biir léegi fii ngay cliquer soo cliquer fii mu indil la option yu couleur yu bëri voilà bu dee métal lañ ko bëgg def bind bi comme métal argent mun nañ cliquer fii ñu xaar mu chargé gis nga bind bi day nekk comme métal su fekkee couleur bi neexul nga cliquer waat bu dee doore lañ bëgg ñu wëri doore am na doore bu rafet bu fi nekk comme bii voilà ñu cliquer ko dañuy defal bind bi jënga mu doore et cetera comprendre nga kon niñ koy defee fii boo defee ba eggal nga ñëw nga def ok mais ñun couleur lañ bëgg a choisir mu ngi nii couleur bu rouge lañ bëgg a choisir voilà fii def def ok moo fi nekkoon léegi nag fii daf ñuy defal maanaam contour bi soo yokkee comme fii sànq boo yokkee bordure yi lay yokk gis nga fii contour yi la mooy si ginnaaw voilà xaaral gis nga mooy si ginnaaw mooy li mel ni ay taq ndee si ginnaaw moom la comme mu ñuul lañ choisir mu foncé wala mu bañ a li fii nga koy yokkee fii nga koy wàññi suñ ko wàññee gis nga nga gis bordure yi contour bi nga day ndaw waaw fii baax na couleur contour bi su la nee nga changé ko su la nee nga def ko bleu wala métal wala et cetera voilà c'est que rouge ak dañoo ànd combiné moo tax logiciel bi indi la si bii mais nga cliqué fii nga choisir beneen couleur boo moom nga ko bëgg def par exemple bu dee verte lañ ko bëgg a def ñu def ok gis nga bordure yi verte na voilà léegi su dee comme ba léegi model nga ko bëgg a def nga ñëw fii nga xool ban modèle nga ko bëgg a def bleu bii lañ ko bëgg a def texture boobu la ji nga moom la siy def su dee gradient nga ko bëgg def ba léegi nga ñëw fii nga choisir mun na la indil option gradient boo xamante ni ñu def ci bii bii am nay ay couleurs yu jaxasoo yu bari la voilà gis nga si bordure du feeñ bu baax parce que dafa ndaw buñ ko defoon mu rëy fii nga. ñi nga mu gën a feeñ tuuti voilà mais bordure yi du soxla nga koy def mu rëy léegi ñu def ko couleur def ko couleur noir parce que noir bi moo gën a rafet voilà gis nga ñu def ok voilà ñëwaat na noir ba pare tuuti léegi lan la ñuy def deuxième étape la ñuy dem voilà ñu cliquer fii sow léegi lan la ñuy xam mu ngi fii laisser tomber maanaam bordure yi si suuf dafa mel am na lu mel ni tuuti tax ndeer bu ñuul mais dafa wàccee ci suuf comprendre nga suñ defee reflet gis nga ñu xool effet bi ji nga effet bi muy def bind bi léegi bordure yi ci nekkoon day dañ mais daf ñuy defal bind bi mel dafa am takk ndeer ci suuf comprendre nga suñu defee lueur ñu xool lueur bi lan la ñuy defal gis nga bind bu bleu bi si boor bi mu defar lueur bu foncé boo bëggee changer couleur bi nga ñëw fii boo bëggee changer taille bi taille lu bleu li nga ñëw fii ji nga lu bleu gën na yokk waaw mais foofu xam ne dugg nañ ci prime voilà <laughs> ñu ñëwaat fii pour mu ñëw version standard voilà gis nga léegi ñu ñëw fii normal cliquer normal bu ñu cliquer normal gis nga mën nañ ñëw fii ci couleur changer tam couleur comme ni ñu ko bëggee comme ni ñu la wax sànq voilà bu ñu fii soit voilà ñu xaar mu chargé gis nga bordure yi nekk si bind yi gis nga ni mu ñu ko indilee dafay détaché li nga xamante ni mooy bind bi ñu defoon ak takk ndeer bi nekk si ginnaaw comprendre nga voilà. léegi bu ñu ñëwee fii contexte ba ba léegi mën nañ ñëw fi ñu def nul fii dañ ko sotti voilà boo defee nul bind kese la lay indi du benn effet waaw comprendre nga mais laisser bi mooy par défaut bi nga xam ne moom lañ ci bëggoon a def voilà ak couleur mooy couleur bu bu ñuul. voilà mu nekk ni dafa sàcc ci bële dut ñu yóbbu ko ci angle pour mu ñuul kukk voilà comprendre nga léegi lan la ñuy def dañuy dem si bi stop muy contexte boo ñëwee contexte moom maanaam fii option yi nga bëgg la lay wax nga choisir ko maanaam option mooy lan mooy sa image bi soo koy télécharger lan nga bëgg mu nekk ko fond bi da nga bëgg mu nekk couleur wala mu nekk fond bu weex ni par defo wala mu nekk transparence su fekkee da nga bëgg mu nekk couleur fii nga koy bàyyi par défaut couleur la koy def nga ñëw fii choisir couleur bi nga bëgg xam nga fii couleur bu weex la def su fekkee couleur bu rouge nga bëggoon mu nekk ko xam nga waa bind mais comme bind bi dafa rouge day compliqué su dee couleur fond bu bleu nga bëggoon ñu ñëw fii cliquer bleu ñu xool gis nga fond bi bleu na comprendre nga su dee bu verte nga bëggoon nga fond bi verte na voilà comprendre nga bu dee bu weex ñu def fii ay F voilà voilà weex je jees lay nekk ak ay F kese voilà 6 F 1 2 3 4 5 6 ok voilà di nga defaat na weex loolu mooy code loolu ay code couleur la nag couleur bu ne dafa am code am ci internet boo dugalee code bi rek couleur bi exact day ñëw voilà weex code mooy loolu dièse ak 6F voilà bu dee ñuul je crois ay zéro lay nekk voilà mooy code xaar ñu xool ñuul ñu xool je ay waaw mu ngoog 6 0 dièse ak 6 0 moom mooy code code noir voilà bu dee bu dee weex nag moom waa ay kii lay nekk ay F lay nekk voilà mu ngoog léegi bu fekkee nag comme léegi bëgguñu couleur dañoo bëggoon modèle comme ni ñu la fond bi nga def comme texture comme ni ñu la woon sànq ci bële bu dee gradient nga ñëw fii nga jaxase ay couleur tamit bu dee sunburst nga ñëw fii mu wax la nga jaxase ay couleurs yu bokkul mais mu defal la effet yi nga xamante ci ay affaire xale yooyu lay nekk voilà boobu moom c'est pas intéressant léegi ñun toujours bi ñuy man bi may utiliser personnellement toujours bii la mooy transparence ce qui fait que ma jox benn arrière plan ce man fu ma neex laa koy utiliser comprendre boobu ëpp liberté soo ko defee pare nga ñëw image soo ñëwee image léegi fii nga choisir format fichier bi gis nga mën nga télécharger PNG wala GIF wala JPEG wala XCF comprendre nga léegi bii comme dañoo choisir fond bu am transparence kon naturellement PNG lay nekk voilà léegi ñu ñëw fii cliquer suivant bu ñu cliquer suivant mu ne ñu passe de téléchargement bi ci indi na suñu image nu mel wax ñu léegi mën nañ koo jënd bu dee dañ koo bëgg a jënd léegi nag comme bëgguñoo jënd version gratuite bi lañ bëgg a dañuy cliquer télécharger <laughs> léegi ñu ñu enregistré ko fii xaar ñu cliquer fii enregistré ko voilà enregistré nañ li nga am moom mooy suñu texte. léegi nag dinañ dem télécharger beneen boo xam ne Flamme la pour wan la euh, différence bi comprendre nga ñu cliquer fii modifier voilà texte bi day modifié wu léegi ñu mën nañ wàcc ci suuf euh, xool fii pour PNG bi lañ la bëgg a pour nga comprendre ko quoi voilà euh, incendie voilà bii la incendie bu ñu defee incendie léegi. ñu xool hmm. waaw mën nañ ñëw ci bii bu ñu noonu lañ jël bi ñu jëloon comme exemple rek voilà bii moom nañ jëloon comme exemple bi nañ ko continuer waaw ñu def modifier voilà léegi ñu def fii Galsen Tube voilà léegi du ma yeneen yëpp du ci changer dara quoi loolu fond bi te def na ko PNG def na ko GIF def na ko GIF voilà voilà léegi paramètres yi comme exemple la rek paramètres jaruma koy changer bind naa ci nga gaal seen tub jarumay modifier couleur yeeg yooyu parce que pour exemple la rek voilà léegi lan la ñuy def dañuy def image directement pour télécharger di nga sélectionné nag xam na ni GIF la def na ko GIF automatique léegi lu ñuy def cliquer fii suivant bu ñu ñu ñëw télécharger voilà ñu garder ko fii voilà téléchargement voilà léegi lan la ñuy def dañuy dem suñu logiciel montage njëkk la woon ci logiciel montage bi voilà logiciel montage waa ngi nii voilà léegi ñu cliquer importer voilà dem importer fichier ñëw jël ñaari texte yëpp indeendoo leen voilà importer ñaari texte yi léegi bu ko defee ñu njëkk indi GIF bi ah GIF bi lañ leen njëkk a wan parce que GIF bi nag comme moom nga bàyyi xel GIF comme vidéo la doo ko mun taay bu dee euh, JPEG boo ko tegee mun ko ko taay ba vidéo fi bi yem mais bu dee GIF fi mu tegee rek lay tegee boo bëggee mu fees de vidéo yaay nekk di indi di indi comprendre nga voilà ñu njëkk indi GIF bi waaw ñu indi ko ci catu vidéo bi léegi nag dañ koy yokk pour waaw suñu vidéo mën a feeñ waaw normal pour buñ koy yo yóbbu duñu am problème buñ ko cliquer nii léegi ñu sélectionné ko fii léegi xaar ma ñëw yóbbu ko indi ko ci suuf vidéo bi rek bàyyi ko foofu pour après dama koy bàyyi mu rëy nii rek liñ ci jublu mooy effet tàkk-tàkk yi nga mën ko gis muy muy muy feeñ quoi voilà léegi comme bàyyi nañ ko nii léegi ñu pour ñu bañ koy copier di ko coller di ko coller mais dañuy bañ copier ko coller ko mu dagg suñu vidéo moo tax dañuy fermer suñu vidéo bii ñu cliquer fii fermer suñu vidéo daal di koy copier buñ ko copier léegi gis nga day ñëw collé ko gis nga ni may def nii muy dem nag te ngay gisoo ma manipuler souris bi mooy damay dama kaa dama kaa copier ba copier ba pare damay def euh, contrôle V contrôle V contrôle V jeex na day collé rek parce que benn yoon laa def copier mun nga ko collé autant de fois voilà contrôle V contrôle V contrôle V ji nga V V V su la neex sa sa loxo mun nga ko bañ a tegg ci contrôle bi di def V V V benn V boo def rek benn image ñëw comprendre voilà noonu la léegi mën nañ tëjji suñu image voilà. léegi ñu ñëwaat ci beneen li nga xam mooy photo bi bii moom waaw du compliqué pour ñu teg ko léegi ñu wàññi fi tuuti voilà wàññi fi tuuti gis nga moom mën nga ko taaw yi nu mu la neexee nga may mu mënoo ko gif da ngay obligé da ngay jël image bi di ko répété répété waaw moom doo ko mën taaw yi léegi nag bu ñu bu ñu ko arriéré ñu ñu xool ñu play suñu vidéo xool xarama pause son bi voilà voilà ci cliquer yaa ngi gis nii voilà yaa ngi gis bind bi dafa nekk bind normal bii yaa ngi gis moo ngi flotté li nga xam ne moom mooy tàkk-tàkk yi voilà gis nga nii voilà loolu mooy li nga xam ne moom mooy écriture bii bu doon par exemple tey moom laa bëgg def fii comme bind yi may def fii ngeen gis léegi dama def Galsen Tube site bi laa ko bindee waaw Galsen Tube bi ngeen gis may teg fii te bokkul ak style bi fi laa ko bindee nii ma ko defee teg teg laa koy defee su def montage ñëw teg ko nii jeex na voilà j'espère que comprendre nga li nga xam ne mooy idée bi voilà lii mooy li nga xam mooy image GIF léegi dem wala nag boo ko bëggoon teg par exemple tey ci sa euh, miniature boo xam da nga ko bëgg a defar pour pour miniature voilà exemple ñu jël benn exemple benn photo nii rek bind bi lañ bëgg indi ñaari bind yëpp teg ko sa pour nga xool différence bi quoi la waaye nag problème bi mooy euh, euh, logiciel bi du jël PNG directement soo tegee image PNG du respecter fond bi loolul ni yow yaa sélectionné pour fond mais boo jëlee image bi directement indi ko rek comme ni nga koy defee ci yeneen logiciel yi nga jël image bu am transparence indi ko teg ko rek mu respecté loolu bi da ngay sélectionné fond bi sinon image bi du respecté li nga mooy bi nekk ci ci affaire nga bàyyi ko xel voilà moo tax moom du pour du du du du du application pour pour PNG PNG daal fooru ci noonu ko voilà léegi xaaral ñu pivoté ko pour côté bi lañ bëgg indi bind bi te mu gën a yaatu ñu def ko 360 ñu wàññi fii tuuti voilà ñu wàññee fii ñu fii yokkaat ko buñ ko yokkaatee fii la ñuy dee yokk ko ni voilà parce que bind bëgg indi côté bi voilà léegi def. ba léegi sélectionné nañ ñëw ci kaw wàcc ba ci suuf nii que am nañ même fond si suñu image yëpp voilà léegi lan la ñuy def ñu ñëw pepet bi voilà sélectionné bindi fii lañ ko bëgg a teg voilà boo xoolee fii partie bi ci kaw ak partie bi nuroowul mais partie bi lañ bëgg a teg léegi ñu dem tam deuxième couleur bi noo première couleur bi lañ njëkk a jël sax ñu sélectionné ko indi ko suñu palette de couleur fii ba mu feeñ fii ñu cliquer deuxième bi indi itam ñaar bokk comprendre nga voilà su ñaaree yëpp bokkee lan la ñuy def léegi ñu ñëw fii cliquer dañuy importer suñu ay texte voilà ñu njëkk indi bi nga am texte normal kase la indi ko gis nga fond bu verte la parce que moom la ñu bëgg moom ko moom la ñu choisir mënoon ba nekk bëgg a teg ci kaw Galsen Tube voilà tege na normal gis nga ñu fi nekk parce que bind bii ni application bii mënu ko def dem nañ ci site bi defar ko taf taf tu la jëlal sax des fois bu dee xam nga li nga bëgg a bind mu leer ci yow nga xam style exact bi nga ko bëgg a def avant nga koy bind mun na la bañ a jëlal une minute pour nga bind ko télécharger ko voilà bu fekkee nag da nga fa de li ngay bëgg bi làmp leeragul sa bopp nga xam na ngay hésité mun na xaw a yàgg voilà gis nga ñu indi bii tamit voilà gis nga wan na gis nga suñ bëggoon bind ji nga li nga am ne suñ bëggoon defar miniature boo xam ne dañ ko bëgg def ay textes yu xaw kese lañ koy defar jeex na man miniature lu may defar bu lul bi à part bii jëmp jeex na application bi parce que bu dee miniature bu simple woon la may teg yëpp dafa dafa dafa normal da ngay ñëw rek teg fond benn couleur la fii laa koy defee bu dee la loo xam ne couleur yi si ginnaaw dafa am yu bari yu bokkul yoo xam ne bii du ko mën si laay soog a dem ci euh, jëmp kon nii mooy ni nga xamante ne noonu la ñuy utiliser site bii di Flaming Text euh, nga bàyyi ko xel bu baax muy site bu efficace pour mën la créer ay texte word art yu rafet yoo xam ne da nga koy mën a utiliser ci sa ay euh, projet yi nga moom ngay def mu nekk projet vidéo wala mu nekk projet yi nga xam ne mooy ay miniature kon site la moom daal youtubeur bu nekk mën nga ko war a mën a parce que dina la arranger trop voilà ci projet yi ngay am ci youtube kon vidéo bi fii lañ koy yemale di leen jox xaw na jaxasoo tuuti nag mais li ci solo mooy j'espère que comprendre ngeen site bi ni muy fonctionner ba bu ngeen ko bëggee utiliser mën koo mën koo utiliser kon ñu ngi leen jox rendez